الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القلب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى رب ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بنانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاعل كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى رب ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن الموت بلى إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم السلام عليكم bii la wala bii bii baax kay wax bii ci gën mel ni bii la ah waaw bii bii ah, di mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyoo di ànd ak di jéggulu waaye su ma waxee sama ngant nekk jéem a nekk sama avocat bopp xëy na danañ ma nangul li may plaideel sama bopp li bés bi tombel la dafa tombé démb mooy laylatul qadri te depuis 1998 ba tey maag Thierno Bachir ñooy def laylatul qadri ca caar pël mosuma ko tardé it nag alhamdulilah 98 ba léegi caar pël mu ngi ci gannaaw Louga dangay dem ba Louga nga jëm kokki kokki paase kokki dëkk ba ñuy wax warak fa ngay jàddee diggante Warak ak Thiar Pël lu mu gàtt gàtt mat na 7 à 10 kilomètres ma yendu ci conférence démb ca ñangal timis timis ñangal la ma fekk ñangal laa déparé utali gannaaw Louga maa ngi fa yegg 23 heures et maa ngi fa jóge 6 heures du matin xëy amoo 6 ñëpp xam nañ ni imam Moussa Gueye yaakaar naa ñëpp xam nañ lim doon ci man sama goro la sama bu ma nee goro doon naa dañ ci doomam ñu am ci doom ma tuddee ko sëriñ Babacar si waaw fa tabaarakallaahu 92 ba léegi maag imaam Moussa ñoo dëkk seen conférence bi chaque dernier dimanche la ci weeru koor 92 ba léegi ñoom foofu lañ fixe seen seen dat at yooyu yëpp ba ma toog di wax ak yow man lañ koy tuddee kuñ ciy teg nag doon la cee teg at bu jot man lañ koy tuddee programme ba ba fii ma toog di wax ak yow ma ne bi ma jógee nag dëgg dëgg dama doon nelaw maa ngi yeewu midi et maa ngi tëdd 9 heures yeewu midi et bi ma jógee Louga 9 laa tëdd damay lay damay lay pour nit ñi xam ne nekkuma woon ci comme waaw kañ bismillah comme du bésu naan ataaya ak yi gerte caaf damay bañ nit ñi foog ne dama nekkoon ci sama ittey bopp 9 heures laa yegg si 9 heures 8 heures et quelque laa yegg si waaw kay incha allah ñu ngi leen di nuyu bismillah tafadal tafadal toog leen 8 heures et quelque laa yegg si 9 heures laa tëdd ma ne bu 11 heures jotee ma jóg bi may jóg. gis muy midi et ma ne eh, tey ma dee ngeen may ma rek may jóg gis muy midi et ma ne ah tey ma dee de onze heures laa waxoon te midi et jot na ma jóg ak robinet bi fekk robine tëj pour sangu fekk robinet tëj wallaay ma woo Ousmane sama sët bi ne ko dawal jëndal ma ñetti bidon dix liitar ma sangu muy dem jëndal ma bii ñetti bidon dix litres ma ne cas yëf ya mu sedd ma ne nañ ma ko nubelal ndax man sedd bokk ma ci yàlla xam na ko xam nga nuggal gaawul bi may pare boobu yaakaar naa quatorze heures teg la ma profitoo julli tisbaar daw nag ci ñoom imam Moussa bi ma yegg si dama yegg si rek mu ne ma am micro bi xam naa ne ñu ngi lay xaar laajal ñi ma te ñu ngi may seetaan mu ne ma am micro bi ndax xam naa ne ñu ngi lay xaar defuma fa sax te yaakaar naa deux minutes ñu jox ma micro bi ma wax sama ngant ne fii laa jëm si sant leen gërëm leen ndax nit it man kenn dëkkuma géejawaay waaye quatre-vingt quatre-vingt-douze ba fii ma toog di wax ak yow seen bés boobu at bu jot man lañ koy parrainé léegi sax dañ ko booleeg sous le haut patronage de Chérif Ibrahima dara Atijani yi loolu lañ ciy def ñoom nit nag bu la fonkee bëgg la comme ni ngeen ma fonkee bëgg ma loolu la fa imam Babacar Diop bu RTS moom la fa wax léegi mu ne ma Chérif yow benn nen nga ñépp war laa bokk kon dañ ko war a omelette waruñ koo omelette dañ ko war a mayonnaise ku nekk tibb yóbbu mu ne ndax buñ ko omelettee rek kenn koy jëriñoo kon fa tabaarakallaahu ah, ak yeneen yu kenn mënta wax loolu moo tax ma tardé waaye ku ma xam xam na ne man tarde du sama mbir bu ngeen gisee it xam naa waa xadara bi ñu néewee nii ña ca ëpp ñu ko woon Louga atumaan mii yal na ko yàlla fay gis nga atumaan bii yal na ko yàlla fay atumaan jool bii yal na ko yàlla fay moom laa mën a wat ne coono bi may supporté mën na ko supporté ku dul man ñi may àndal ñépp ba ci man Gueye mii dañuy nelaw bay xërëm ba bi ñuy jógee Louga rek léegi moo ci mujj ma ne ko sa wilaaye gi yëpp nelaw la waaw ah, mënoo cee def dara lu dul nelaw ah. dama koy wax rek nit ñi xam li may daj yàlla xam na ko keroog bi ne tey la koor ba fii ma toog di wax ak yéen huit heures du matin laay tëdd onze heures laay jóg tey laa mos a jóg midi et demi huit laay tëdd onze heures laay jóg tey laa mos a jóg midi et kon damay wax rekk ne ñoo partagé coono yi waaw coono yi ñun ñoo ko bokk kon atumaan moom mii moo jiitu ji woon Louga ak kaar bi bismillah Cheikh na yegg yàlla dogal aleykum salaam wa rahmatullah bi ñuy dem Louga dama ko détaché ma ne mbay jum kaar bi war a jëm ca ñoom ajaaru gi yow dirigeel kaar boobu aleyka salaam wa rahmatullah aatumaan comme mu nga jëm Louga xam naa ne du ko mën ndekete ci diggante bi mbay jum am na ngant ndax seen société fi muy liggéeyee dafa am responsabilité yu ñu ko dënk mu ne kon aatumaan fi sës aatu xaw ma ban heure la yegg si moom xam nga oto bu ndaw a gën a gaaw kaar man woon na ma maa leen njëkk a yegg te gis nga ñëw nañ mu nga na le toog dirigé waat kaar bi indi leen kon atumaan man jërëjëf bi ci des it suñu xew wa ca amoo kat ajaaru gi togg ya lum rëy rëy moom moo koy togg kon maa ngi koy sant di ko gërëm ci seen kanam aatumaan jërëjëf ndax nit itte rek itte ah bi ci des nag moo di sant association bii nga xam ne euh, cheikh bi ana kayit bi ak kañ alhamdulilah ma ko waxoon mu may ma ma sant kilifa yi waaye balaa ñuy sant kenn ak di gërëm kenn dañuy wax li yonent bi wax sallallahu waatul buyuta min abwaabiha li yàlla wax ci alquran astaghfirullah waatul buyuuta min abwaabiha yonent bi salaay sallam ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri laa salaay sallam nee na ku santul xéewal yi fi ko yàlla jaarale ba mu yegsi ci yow mu ne boo ma santee man yàlla ma delloo ko ndax damay xam ne jaroo ko yàlla du tàllal loxo ne kenn am dafa naan saam mbuub am saam jottali keneen wala mu ne petit am petit jottali keneen kon damay sant ajaaru gi mu tegal ma ko ci loxo nag présidente ak kum mën a doon ci membre yi fi nekk ndax moo tax ma am accès fii Adja gi balaa ma koy sant borom këram bii toog lay sant si ñu ngi lay sant bu baax ndax moom njobootam yépp suñu njoboot la doomam yi am na ci ñoo xam ne maa leen jox tarixa bi kon nag nit bu la wóoloo ci njobootam wóolu la ci soxnaam wàcc na ak yow kon si ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla yàlla bàyyi la ak sa njaboot di sant tamit Ablaye Ba boo gisee sa xadis boobu jigéen ñi ngeen baal ma ñemewuma ko tudd waaw ñu ne DK 41 59 DK 41 59 ki ko moom mu ànd tuuti rek waaw waa Touba TV dañ bëgg a génn mbaa man fàttuma yoon wi man kay ki ko moom mu ngi ñëw jërëjëf Cheikh bi ajaaru gi ngeen baal ma de boo gisee xadis bi ma wax léegi ne ñemeetuma tudd xadis du ragal nag saam bu ca kanamee nga am noo def moom maa ko invité démb bi may dem bi ma jógee ñangal di dem Louga fekk soxnaam laa doon defal programme àjjuma ñëwu ca man ne ko dinaa ko nangu ndax maa ko ko mayoon di la defal programme nga bàyyi fi sa soxna dem sa yoon waaye yekk naa ko lu ne nag ca programme ba moom yaakaar naa yëpp jot nga ci de waaw dinaa la wis nag booleel la ci ah di defal sa soxna programme jaaru fa sax waaye nag ñu ngi ko ji gërëm ndax dafa àndoon ak kilifaam muy Serigne Habib nekk Tëngéej bi ma demee ba Tiwaawoon eh, astaxula Thiès ma gaare ci EDECA bi di jënd lu gaa yi mos pour ñu continuer Louga fa la ma Cheikh baas fekk ak maam Mamour Tall fa lañ ma fekk maa ngi leen di yóbbante nuyoo ci sëñ Habib waaw lay ndeysaan tabaarakallaahu saam bii nag ma ne ko pour ma baal la daal suba di ma fekk soli daal bi ci des it suñu spécial korité bi faw nga ñëw ma doon laa baal mu ne ma yow loo bëgg rek loolu laay def ma ne ko bëggoon naa nga ñëw àjjuma te ñëwoo kon kañ bu ma ne loo bëgg laay waaye ku baax la suñu wëllëre la ni ko petit nekkee petit ak as ak ñépp rek damay bañ a catu tabaarakallah ndax ñii maag ñoo ma bokk bàyyi waaw ndax ku ne Baye Moussa ale ne Alaaji Abdul Aziz maam Moussa Allé ku ko tudd tudd Seydi Hadji Malick ku tudd Seydi Hadji Malick tudd Sëñ Abdu te ñun loolu lañ fekk Sëñ Abdu di doxal ñun yéen rek la ñam waaw yéen rek la ñam ndax nit ku sa kilifa fonk rek fonk ku sa kilifa yëkkati rek yëkkati ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leen ba ngeen yëg ci barke weer wu tedd wu màgg yii ajaaru gi balaa may nuyoo dafa am li tax ma ne ñemeetuma tudd benn xadis wax naa ko léegi ci imam Moussa ma ne ko nag imam mu ne ma ne ko am nga responsabilité ndax ci yow waxkat yi nga bokk ma ne ko beneen bi ci des mooy toujours yaa ngi ci télévision yi di wax ma ne ko beneen bi ci des nag thème bi fii tey yonent bi la ñoom ci la imam di waxtaan ma ne ko te yonent bi lañ attaqué ti ki ko attaqué duma ma tuddagum turam waaye maa ko gën a pànk rawuma maa ko ëpp fit téeméeri junni yoon te lu muy jaay mën naa ko jënd waaye damay waxagum ak moom ci média la waxee ci média lay waxe man àddina bi yëpp lii en direct la balaa may ñëw li ngeen fi def bi seetaan naa ba bi cheikh bii di waxtaan yépp maa ngi koy seetaan ci bi may dem ci oto bi yépp maa ngi koy seetaan ndax dama naan xale yi tegal leen ma ko may koy seetaan ci écran bi en direct la àddina bi yépp a ngi koy seetaan ba tey jii am na ku ma woo ca Espagne ak Italie di ma sant di ma gërëm sanq bi may jógee ba taal sama portable di seet ndax am na ñu ma woo ci la dugg moom dama ko wax ak moom ba pare sa fay ko mu ne ma ñëpp a lay sant di la gërëm ci ni ngay défendre yonent bi ma ne ko dama amul ko dul yonent bi ñi ci desit amuñu ko dul yonent bi wo tudd turam xëy na ngeen xam ko waaye ragaluma ko de te bu wéyee rek ma wéy bu yemee nag ma yem dafa tànn xadis yi nga xam ni daanaka mag ñi fii xadis yooyu la ñuy wax mu ne xadis yi dañ leen jàpp xubbul watani min al iman mu ne ca la bokk laa yuminu ahadukum xata yuhiba li axihi xam nga Maodo indi na ko ci xutbaam ba wa fi lxadis laa tadxulu ljannata xata tuuminu walan tuuminu xata taxaabu qaala taala wa'tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wala fi gayri zalika bi diini taxaqaqu wa subulu alcaafiyati alyowma la tuslaku illa bilmaqaal wala yuzaalu yukadibuna lisaanu alxaal fama lana illa uyunun naziratun la tubsir wa qulubun qaasiyatun la tufakkir fama fama ashadda amama samama al aadaan laqad rahaa'in qad galiqat inda alcheytaan fattaxizuhu aduwa kama qaala azza wa jalla doola indi ñaan nga najjana allahu min kaydi najjana allahu wa iyaakum min kaydi wa amaana wa saaira almuslimina bi xeyri wa radia allahu taala an saxaabati ajmain wa man ihtada bi hadihimu ila yawmi ddin allahumma umma bisalaaxi wa tawfiqi raaya almuslimin wa umaraahum wa ulaatahum wa xukaamahum wa qudaatahum wa ulamaahum wa hudaatahum wa kathir ansaarahum waxmi xawzatahum wa aali manaarahum wa amin subulahum wa arxis asaarahum door indi salaatu ala nabi allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi lalamina innaka xamidun majid door a tëj xutba bi kon ku fi bëgg a jéggi li mag ñi indi da ngay ruus rek waaye loo dem ndax kenn rawule dama ne mu yegg ca nag fa ma gën a méttiti nag mu ne nañuy tey ci yaayu yonent bi ak baayam ndax ñu nga safara waaw kañ riir mi rek moo lay wan wax na loolu foofu la daanu ji pëti dal di ne kenn waru leen ñaanal ndax fekkee wuñu lislaam ñu nga safara moo ko wax de sosalu ma c'est très grave c'est très grave xaw ma xaw bi xam ngeen ko wala déet ajaaru gi lan mooy seen thème bi tey lu ngeen def thème ah, ah? la vie du prophète kon tombé na yàlla xam na ne ndax kart yi dama toujours man bu ñuy def programme ñii def yëpp dama leen bu leen ma indil carte man wóor na ma ne bu ma deewut dinaa ñëw bu ma feebaroon sax danañ ma teg ci balankaraar indi ma ba ci tànt bi ngeen xam ne dama feebar ñu door maa évacuer man noonu lay fonctionner ñëpp xam nañ ci dara Mansour Thiam bi may dem ci programme bi dañ ma jàppoo ñëpp sekkee nañ ko dañ ma jàpp pour ma taxaw danaa def presque dix minutes pour mën a taxaw boobu mais terewul dama dem waxtaan ko parce que nit boo joxee sa kàddu feeg sa roo xorotul war nga ko mën a respecté feeg yaa ngi mën a wax di war na yëngu rek yenn détails yi waru laa mën a baax loolu àddina bi yëpp gis nañ ko conférence Mansour Thiam Piki yàggul dara ci avril bi passé na kon euh, thème bi bon tombee na waa ji mu ne yonent bi baayam ak yaayam yépp ñu nga safara nii la ko waxee nee na kenn waru leen a ndax fekke wuñ lislaam démb moom laa ubbee ca ñangal Louga moom laa laylatul xadare ca Cerno Bachir ca imam Moussa Gueye léegi moom laa fa fii lay tëjee le huit laa amaat programme ci moom lay gont ak le quinze ci moom lay gont su ma demee France conférence bi ma fay def le 20 bii ñu nekk nii ci moom lay xëy ci moom lay gont du ko yekkale ba faw am na client bu mu dul yekkale ba faw du ma ko bàyyi nag feeg yëguma ne dellu na ginnaaw billaahi wal kitaabi ndax fii kuñ fi tudd sëriñam ñépp jóg attan nañoo dem sax taal këram bu ñu waxee yonent bi ñëpp ne pat moo tax ma teg ci beneen entre parenthèse sëriñ Mouhamad lamin sàll bu sëriñ Abbas Sall yal na yàlla guddal fanam maa ngi koy ñaanal yàlla di ko gërëm di ko sant ci barke baayam yàlla bu ko kenn ëppale ci sëñ Abbas yàlla bu ko kenn ëppale ci maam Alpha maam maam maam Yoro maam. alfaahil ma yoro déedéet maam ma yoro sàll yàlla bu ko ci kenn ëppale ndax lamin Sall wuutu ñu ñun ñëpp tontul ñu ko mel ni kii it koo xam ne daanaka dafa xas yonent bi waaye maa ko seetaan Lamine Sall tontul ma maa ngi sant yàlla nag la ma ca waroon a wax yëpp Lamine Sall waxal na ma ko xaw ma seetaan ngeen ko walla déet waaw kañ kon maa ngi koy ñépp amee nañ ko njukkal sëñ Lamine Sall yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay man yonent bi nu mu def nit ñi damay laaj lu yonent bi def nit ñi loolu lay laaj ba ko jóg rek attaqué yonent bi te yow wóor na la ne ñemewoo attaqué sëriñ si fi nekk ndax koo ci attaqué ay taalibeem jóg daa ñu la wulli ba nga nooy waaye ku ci attaqué yonent bi na la wóor ne bu la nit ñi wulli wut yàlla wulli la te ma wax la baaba Ahmad Cissé waxoon bu pir moo noon fekk daf doon firi euh, murdafina salaasata alaafin min almalaaikati murdafin bu ko in jàng inni mumiddukum bi salaasati alaafin min almalaaikati murdafin mu dem ba mu yàgg mu ne bi xamsati alaafin min almalaikati murdafin wa ma jaalahu llahu illa bushra lakum wa li tatmainna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indillahi alazizi alhakim maam ba mu koy firi mu ne yaa ngi xàmmee ña malaaka yi dóor ak ña nit ñi dóor mu ne ña nit ñi gor jaasi da gis trace bi mu ne waaye ña malaaka yi dóor dañuy mel ni kaala danga leen li mën a kaalawoo ndax nooy te dëgg na dooru malaaka xajut ci nit ba malaaka yi di wàcc di xeexale yonant bi ca Badar yàlla daf ko ne dinaa la renforcer ñetti junni 3000 ci malaayika ba yàgg mu ne ko xeeb naa ko danaa ko def 5000 ay malaayika yu ñëw dimbale la defuma ko lu dul dimbale la yow rasulullahi ak bégloo la defuma ko man yàlla lu dul dimbale la ak bégloo la bëgg nga bëgg malaaka yi xamuñ xeex bi ñuy wàcc ñu ne yàlla nu ñuy xeexe ñun duñ nit duñ mbindeef jànguñu xeex xamuñu xeex yàlla moo nekkoon seen gidd wadribu fawqa lanaaqi wadribu kulla banaan yàlla ne malaaka yi dee leen cor ci loos yi <laughs> xam nga fi koo ci dóor dagg na jeex na mu ne bu kulla banaanin fu ngeen gis sof rek dóor leen waaye keroog ñu rey ci yéefar yi soixante-dix jàpp ci yéefar yi soixante-dix kooku yàlla defal loolu yow nga xëy di wax yu kenn xamul te doo ko kenn xam mu ne nag lam ko layee nee na ndax bi ñuy yónni yónnent bi boobu fekk na Abdullahi génn na àddina ak Aminatu nam waxee laay waxee rek maanaam ay ceddo lañ maanaam ay ceddo lañ Ablaay ba ñu ngi lay dañuy ñëw ci nuyoo yi damay jox entre rek ngeen baal ma mu ne diggante bi yoon yonent yàlla Isaa demee ak bi yonent bi di ñëw xam nga diggante yonent bi ak yonent yàlla Isaa ñaata ata fa dox ah ñaata ata fa dox juróom benn téeméeri at moo fa dox am ñu ne juróomi téeméeri at ak juróom fukk moo dox ci diggante yoon yàlla yonent yàlla Isa ak yonent yàlla Muhammad mooy tolloog li dox ci diggante Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ak Cheikh Seydi Ahmad Tijaani 600 ans la Cheikh Abdul Qadir Jeylaani magee Cheikhuna Tijaani nit ñi lañ dul gëstu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani bi moom tariqa qadiriya judd na fi màgg fi jàng fi ba am fi tariqaam ba génn àddina fi mu génnee àddina ak fi Cheikhuna Tidiane yi ganee àddina 600 ans yu tegul benn fan la juróom benn siècle la moo dox diggante Cheikhuna Tidiane yi ak Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani looloo dox diggante yonent yàlla Isa ak yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad bi muy dem dafa ne inni yont yàlla isa bi muy dem dafa ne maa ngi dem yàlla may yëkkati yàlla wax ne maa ko yëkkati yóbbu ko asamaan waaye reyuñu ko daajuñu ko wa maa qataluuhu wa maa salabuhu bal rafaa allahu ilayhi yàlla ne maa ko yéegal fi man waaye kenn reyu ba muy dem nag dafa ne xeetam wi ne leen inni naka man isa ubashirukum maa ngi leen di bégal bi rasulin ci ndaw loo xam ne yaatiya mu ngi ñëw min baad yi sama ginnaaw ismuhu turam ahmadu ahmad lay tudd la tax waxul muhammad ndax xaajagul gane àddina te turu àddinaam sañu ko génnee yàlla war ko turu biiram muy ahmad turu woowa la génnee ndax boo demee ci asamaan xamuñu Muhammad Ahmad lañ xam ñoom te moom comme asamaan la doon dem te sañu la wax tur wi ndax maamam yi sax ganeeguñu àddina yàlla woon ko turu biir wa moo tax Cheikhul Hadj daal Aziz daan na wax ne ku xamul sa turu biir mënulaa defar ci yàlla yow fii aas lañ xam waaye ci asamaan yi tuddoo aas naa tuddoo aas loolu beneen waxtaan man Chérif Ibrahima lañ ma xamee fii moom laa tudd waaye ci asamaan yi tudd ma Chérif Ibrahima rugiyatu mii rugiyatu lañ ko xamee fii waaye tuddul ci asamaan mi rugiyatu bu baax amul ku yàlla baaxe ci réew mii ñu di la tudd te yeggoo ci niveau boobu muy Seydi Hadj Malick ak njobootam yépp nag muy maam borom Touba. ak njabootam ñun dàkkantal lañ am waaw kuñ tur yaa kaw tur yooyu nag bu la malaaka yi di recherche booba la ñuy xool lan la correspondral fii ñu ne aas la correspondral ñu wàcc si ci aas mooy anonymat shahaada fii malaaka yi miinuñ fi xamoo malaaka mënul def dara moo tax bu ma déggee ñi tagg ni naan comme malaaka ma ni xas nañ ko di nit a gën malaaka fuuf nit du moroomu malaaka waxuma la ak xam nga jinne sax dana am waaye malaaka amul bàkkaar malaaka dafa set wecc ci bàkkaar ndax yàlla wax ne laa yasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun malaaka bu bëggoon lu bon sax du ko mën ndax xamu ko yàlla moo ñaalewu leen pour ñu pour ñu def lu bon wala ñu xalaat ko walla ñu wax ko ñoom ay leer lañ lu baax ak yiw rek lañ ñu xam loo dégg ñu def ko rek yàlla leen ko sant fu ñu bombardé rek yàlla leen ne dem leen bombarde foofu fu ñu yóbbu yiw it yàllaa leen wax yóbbu leen ko comme guddi gi ñu génn salaamun hiya hatta matla il fajr tanazzalu al malaikatu war ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlaay alfajir yàlla nee na tanazzalu dañuy wàcc malaayika yi waaye wa roox mënoon na ne malaaka yi rek wa mooy jibril ak seen kilifa jibril ci kan mu ne ci guddik laylatul xadri mu ne ñu ne ko lu ñuy def si mu ne salaamun jàmm lañ fi indi xatta matlaay alfajir ba fajar xar kon saam malaaka nit a ko gën gis nga jibril li muy baax baax baax te jiite malaaka yi diriger leen mbaax weesuwul moom la daan tiitaroo ci malaayka yi xaw ma lu ma leen ëppalee waaye maa leen gën ndax bu yàlla gën a bëgg ci lim bind muy may maay jonjoog moom xoolal kooku di tiitaroo loolu yow kenn xamut sa ndey kenn xamut sa baay kenn xamul la nga ne da ngay jéem a tuutal way juru yonent seetal jibril moom laay waxal moom may dégg golo la moom golo ko gën moom ki wax ku wax jooju golo ko gën ndax golo sax ci yàq la ko yàlla bind moom yàlla teral ko benn wala xad karam naa bani aadama mu ne ci lislaam lay wax di jéem a gotti yonent bi te balaa nga naan naam ne fa ñun ñépp yonent bee tax ñu am waaye déglu leen li jibril wax ma la malaaka mi ne leen lenn laa leen ëppale maay jonjoog yonent bi ndax maay indi wax yu di ko jox am na bés benn fajar yonent bi sëlmal ñu gis ku jógee na la di ñëw set wecc sol yére yu weex tal ñëw ba sës ci yonent bi jël ñaari oomam yi sës ko ci bëti ñaari oomi yonent bi jox ko loxo fóon loxo bi yonent bi muñ mu ne ko dafa am lu ma yëkkati mu ne ko lan la mu ne ko sa borom day moo ne naa ñëw laaj la ndigal dama ngéeju woon man jibril génn ci kooru malaaka dootuma nekk malaaka bañ a nekkati malaaka yonent bi ne ko ndax lan mu ne ko ñaar ndax ñaar bëgg a bokk ci sa xeet wi bëgg a bokk rek ci sa xeet wi ñu limaale ma ne man jibril ci xeetu yonent bi laa bokk benn mu ne ko ak ban mu ne ko ak ñaari rakkay fajar rakk tey nil fajiri waxul jullik suba de ñaari rakka yu woyof yooyu nga xam ne faatiyee rek ngay jàng jibril ne jaral na ma ma génn ci kooru malaaka ak li ma leen di diriger yépp nekk nit bokk ci xeeti yonent bi yonent bi ne ko ak ban mu ne ko booboo ko tëj mooy ñetteel bi mu ne ko ma fekk mbokk gu yàqu ma defar ko fekk mbokk gu yàqu ma defar ko mu ne ko yàlla ma yàlla won ci ñett yi la ca nekk ci yiw ñun malaaka yi sax mënuñ koo jàmm yàlla yaa ngi cay déggee nag ku tas mbokk waaw ah, la muy rëy rëy tiyaaba ji la muy rëy rëy déggee ci contraire bi dañ la wax defaral nga tas kon ku tas mbokk ban bàkkaar nga war a am ku tas ñaari xarit yuy ànd ban bàkkaar nga war a am ku tas diggante jëkkër ak jabar ña ban bàkkaar nga war a am ah nañ xool rek ku fexe ba ruuxle diggante directeur bi ak ay employé ña yan bàkkaar nga war a am ndax bëgg a jël poste bi ca amaat na buñ ko dàqoon sax yow doo fa toog dëgg la wala du dëgg ndax ruuxle rek ni mu amee tiyaa bu bàkkaar bi noonu lay toll maa ngi koy wax démb ci ñangal ma ne leen bu ngeen gisee yàlla ne ku def benn ma fay la fukk moo gën a tuuti ba téeméer yàlla diis lay da tàmbalee ak jaamam benn bu baax fukk yu baax mais du ca yem léeg-léeg mu xool jaam bi yërëm ko ne tey cent laa koy jox léeg-léeg mu yërëm ko ne déedéet tey moom sept cent laa koy jox fi kulli sunbulatin miatu habbin wallahu yudaa'ifu liman yasha nee na ma xool ba mu yàgg sama ne léegi junni laa koy jox benn mille kii baax na nga def benn bu bon ñuy bàyyee la benn bu bon moo tax alaaji Malick daan wax ni ku fexe ba say benn benn ëpp say fukk-fukk sàggan nga waaye xam nga lu tax benn ba garaw benn bi déedéet day peser quatre-vingts ton ndax na bàkkaar ba toll léegi nga def bàkkaar boo xam ne quatre vingt tonnes lay walla cent tonnes lay peser parce que na ne jëf ja toll la tax lu ko demee ni li Jibril wax tas mbokk tas mbokk nag buñ ko waxee bu yaatu na jëkkër ak jabar buy ànd nga fexe ba tas seen diggante ñaari xarit yuy nga fexe ba taqali leen directeur bi ci service bi bëgg ñépp nga ñëw di nekk ci noppam rek boo xamoon ne la diw bañee diw du xëy waxtu diw du wàcc waxtu moo day teel a ñibbi kaay dem biroom nga xool ko ba buñ nuyoo sax directeur fayee ko cati la baaraam wala cetu làmmiñ nga yaakaar ne sa ndam la fekk yaa ngi toroxal sa bopp te yëgoo ko yonti yàlla isa nag ba muy dem dafa ne inni naka man isa ubashirukum maa ngi leen di bégal yéen sama xeet bi rasulin ci ndaw loo xam ne dañ koy yónni sama ginnaaw yaati ya nag dana ñëw xaw ma kañ la waaye dina ñëw de ñu ne ko num tudd mu ne ismuhu turam ahmadu mu ngi tudd ahmad yàlla ne ba mu dikkee ñu weddi ko ndax muhammad bee tax ñoom ñu weddi waaye ngañ mooy dem ba rek wala déet sàmbay bàcc yow kañ yaa xamul lu xew waaye ngañay dem ba sàmbay bàcc moodu boo dégg mooy muhammad kon bi yonent bi ñëwee ñoom ñu ne muhammad la tudd kon ahmad lañ leen annoncé woon yàlla ne yaarifuunahu xam nañu yonent bi kama naka yaarifuuna lañ xamee abnaahum seen doom yi jur ci seen biir ak seen dikk waaye dañoo lank rek xam nañ ne yonent bii la yón ci yàlla isa doon wax ma ñëw foofu lay lay nag diggante yonent ak yonent lum sori sori xeet woowa fa nekkoon feek beneen yonent ñëwut ci jëfi yonent bale la ñuy tënku kon diiru li yonent yàlla Isa jógee beneen yonent ñëwut cinq cent cinquante ans wala six cent ans yépp ña fa doxoon ci diine yonent yàlla isaa lañ doon tënku ci lañ leen di atte ci la ñuy tënku ci lañ leen di nit ñi dañ jàngut ñu baal maax boo bëggee wax dangay ngay jàngi diggante yoon yàlla Muusa ak yonent yàlla isa diggante bi ña fa ne woon ñépp ci diggante yonent yàlla Moussa ak isa balaa ñuy yoon yonent yàlla yónnent yónni yonent yàlla isa ci diine yonent yàlla Moussa lañ doon atte moo tax boo demee ci suuratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli loolaa la koy wan sañoo teqali benn yonent ak moromam ñépp ngay gëm wala doo nekk jullit yàlla ne kenn sañu ko laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli lenn rek nga fa sañ wa qaalu samina wa atana yàlla ne maa la yoreel nag ghufraanaka soo ma toppee maa yore sa njëggal kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndeyam ak baayam aminatu bintu wahbin ak abdullahi ibnu abdul muttalib ci leer lañ tënku woon leeruk yonent yàlla isa ma ne ko moom ci boppam moom xam na ma xam naa ko maa ngi koy lancé benn défi rek boo xam ne abdullahi tontu woon na ko benn jigéen ndax dafa am benn jamono benn période ñu ngi ci thème bi de benn yëwut ne at mii di ñëw yónnante mujj jamono ci lay gane àddina xaw ma ban jigéen a koy jur waaye am na sens jigéen ñi di njëkkalante mu ne waaye góor gi it ku ko gis di nga ko xam ndax leeru nubuwa gi mu ngi frappé ci ci jëwam fu fu ku am leer tuuti rek boo ko gisee di nga ko xam mu mujj gi Abdoulaye génnatul te boobu xam nga Abdoulaye sa torondoo ñaata at la ma 18 ans te moom mi wax nii am na 56 ans moom waa jii di wax waxi doxam yi am na 56 ans mu xam ne xam naa ko boobu Abdoulaye 18 ans la am bu fa mu génn ci mbedd mi rek leera gi di frappé jigéen ñi topp mu am benn jigéen bu ñëw ci moom. ne ko Abdoulaye mu ne mu ne ko du gis nga ni ma mel mu ne ko mu ne ko xam nga ne dëkk bi yëpp maa fi gën a taaroo mu ne ko ah mu ne ko te xam nga maa fi ëpp alal mu ne ko waa ah becc lan mu ne ko ma bëggoon ñu dugg ci biir néeg bi rek li ñépp di njëkkantoo ma jël ko te loo bëgg ci alal ma jox la ko joxale la sama bopp Abdoulaye ne ko loolu gor dina ko def loolu la ko tontu le ndax loolu gor dina ko def mu ne ko ah yëguma fu góor war a defee loolu te bu dul dara nag sàmmal sa ëllëg wax jañ lay waxal mayit ma sàmm sama ëllëg wax jañ may waxal jombal la naa ko sama bopp ma ne ko moom mi wax lii xam naa jigéen yi muy tëjoon na yem du kenn te boobu Abdoulaye kenn yónniwu te la muy xëlamtoo jigéen ña ba di tëjoog ñoom xam naa ko na yem du kenn boo melul nenn dangay yem na yem na yem na yem yonent bi du moromu ndeyam du moromu baayam sallallahu alayhi wa loolu la tontu Abdullahi bébé Abdul Muttalib ñëwee waaw penc mi yépp daje ne dëgg-dëgg nag aminatu bintu wax bin mbokk la ci abdullahi ndax cousin am la li gën a rafet mooy yëg nañ ne aminatu bintu wax bin ku téye njàmboram la ndax du génn kenn ma su ko xamee génn kenn ma su ko xamee dox lu dul farata kenn ma su ko digg ci waxu mbóosóor kon nañ jël abdullahi dënk ko aminatu bintu wax bin ñetti weer la def ak moom tukki dem dëkk bu ñuy wax Abwa mu ci booru Màkkatal Mukarram sibiru dab ko fa mu génn àddina dégg nga wax sibiru dab ko mu génn àddina ñu rob ko ca dëkk booba ñuy wax Abwa bu jàngul na ñëw ma wax ko kaay ma wax la dëkk booba ñuy wax Abwa ca wetu Màkkatal Mukarram fa lañ ci Abdullahi sibiroo ko daboon mu génn àddina boobu am na lu yàlla nar bëggul mu fekkee doomam ji ndax doom bu supérieur baayam ba mu ëpp ñaare boo moytuwul baay ba du ko nangul te yàlla fasol yéene loolu dégg nga wax mu des fi ndeyam ak ëmbam sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee loolu yaakaar na booy nañ noppi ñépp maam boroom Touba bind na ko Seydi Hadji bind na ko bi mu amee ñaari weer ci biir yaayam la baayam génn àddina Abdou Aminatu des ak ëmbam weer wu njëkk wi sa maam Seydi Hadji wax na ñaata yónnante ñoo ñëw di ko ndokkeel ci ëmb bi weeru ñaareel weeru ñetteel ñeenteel juróom juróom benn ba juróom ñaar juróom ñett ba juróom ñeenteeli weeram weer wuñ dugg dana am kuréelu yonent bu ñëw ndokkeel ko sukk ci kanamam ne ko aminatu binti bi ñu ne mu ne ah mu ne ko yaakaaru tey ak ëllëg yaa ko ëmb fais très attention